ñaanal ba sama yaram di daw taxawu ma comme mag bu ma bokkal ndey ak baay tey ji jom ji mu am ni barki dee moo njaay la ko firndeel ci man ba ma naan ko Balla talal sa combat bi man dinaa am jàmm mais tey ji jàmm jooju xëy na yàlla multiplié na ko tey ñu sama sëriñ sëñ Babacar Si di wax ndam li yàlla ñu jig jig ñun ñëpp parce man menace tour du monde Balla taxawu na ma daan comme ni mu taxawoo doomu aadama yi taxawu sama taalibe yi ndax tey ji sama ah xaalis bu bëri lañ yendoo di bëggee ndax moom ndax lépp loo wax rek mu ne ma sa dafa rafet kon yéen su ngeen bëggee ma bëgg kon tey jii bëgg te gi ñun ñëpp ko ko yéene woon te yàlla na ko jig ak jàmm ak salaam mboolem àdduna loolu tara ma buuxante ñëw sama mag ji gis ma xam ne bànneex bi mënu ma ko fanaanoo il fallait que ma ñëw pour mu kontaan bisimilah alhamdulilah maa la gën a kontaan maa la gën a kontaan maa la gën a kontaan